yaa jox suuf soosu waaw d' accord ma rappelé waaw. ma. leer na. sa. Ah? non man lu leer rek la ba tey bugguma lido ci kër gi. lido bii ci weeru koor wi ñun ban njëriñ am mën ngay def leneen loo xamante ni moo ëpp yiw que

Euh, euh, maire bi jaay beñe ci bopp ko maire waaw man daal la maire Korko lay wax. voilà maire Korko Ndaw xam nga dama koy yëpp buy su ma ko rombee rek daal di euh, jël benn beñe rek hmm. dem ma ñëw ko jël te ñaari beñe lekk mun moo alaaji ko hmm, rey ma loolu laa juboo de. léegi nag xam naa ni mu amatuma koor léegi xam nga nuy def defaral ma omelette. pour lan. damay añ kër gi doo fi añee. ah ah waaye yow dafa donc nag amatuma koor du ma du ma añ. mais kër gi doo fi añee say charte la yoo fi teg. ah oui non man loolu waxuma ko de daa juubu mais boo dee juubu xanaa benn benn ngay juuboo ko rek. wala mbuusu beñe kii dafa añ. de damaa jiw ba pare ni ko jaay ma ci ko oh, après ma ma seet nu ma koy. ma ne yii ngeen ma ne ko defaral ma omelette ma añ. billaahi yaay kër gi kii du fi añee. baa bu añee ma añ. wala léegi lu may def. yow boo rusulee yàlla nga rus li ñi ngay romb. dëgg vraiment ah oui. mais korka ba fii nga gàddu mbuusu beñe. waaw di lekk waaye bàyyi seex na yow kenn waxu la dëgg. waaw léegi kon nu may def rek léegi. man maa lay wax ni ngay def. lu may def gannaaw yow mii mag yow yaa xamul ni ngay def man gone gi dinaa la wax ni ngay def. gis nga boo juboo ci koor dangay ngay sa koor bu koor gi weesoo nga fay boru koor bi mais dangay ngay continuer déedéet yow sharia waxul loolu <laughs> li mu wax mooy juboo day continuer kooram mais bu koor gi jeexee du ci fayante. benn bis mais kii li mu juboo daa bari. ah oui. yéen ñaar ñëpp amu leen xam-xam. yéen wax dara def. xaaral ko xam-xamam rafet na. waaw woo ko dina ma wax li ma war a def. woo ko tee leen rek. woo ko. waaw sama papa day déggoo rek. mu eh, mm, mm, mm. lay ziar ci weer wi. waaye jërëjëf Gueye. Guèye <laughs> Guèye waaw man de damaa amoon benn problème ci affaire diw bu ci koor gi yooyu waaw. man daal euh, mais Korkando waaw Korkando bi jaay beñe fii dama ko romb juubu ci moom euh, lu tolloo ko juróom-ñetti beñe. léegi huit léegi nu may juróom-ñett waaw waaw waaw nu may def waaw waaw. Hmm? Ah, waaw. waaw waaw ah, ah. waaw noonu lay def. waaw waaw waaw jërëjëf Guèye jërëjëf jërëjëf. léegi lan la la wax lan la la wax. coupeel te wax leen li mu la wax. yokkaat nga beñee yokkaat nga beñee ah. lu mu la wax. kii nee na ah ci li mu wax nii nee na nee na nee na damay damay continuer après ma fay waaye moom dafa ne cay nelaw. Ah, li mu la wax moo la arrangé li ma la wax du dañ yaay booy. c'est parce que li mu la wax moo la arrangé day continuer su paree mu fay. Cheikh Cheikh Diagne Mbaye Baye Diassé laay woo. ah xam-xam la. wóor ñëpp wóor Sénégal wóor ñëpp. loolu yëpp yow. fii leen téléphone am bii. boîte vocale. yaa ci wax leen ko dëgg. waaye ma numéro yi ah. ah waay ah, kii waay ah waay kii waay yow. lii mooy lan li ngay def nii mooy. yàlla yow. imaam yi ci Sénégal gi yëpp mënoo leen a woo. ah waay xam nga lan la bu ñu soxla. yaay teen beñe bi. ah waay jox ma sama beñe yow. teen beñe bi bu ko jox. ah waay. kër gi xaalis ah, jox ma sama beñe. añe ma fi añe. ah waay ah waay non ma fi. moo tax man kër gi moo fi toog kër gi lii moo tax du ma fi toog quoi. ma ne lu ma say bañ dama laa joxul dara te yow war ngaa rus lii. waaye nii lañ lay bàyyee. dama say bañee yow. lido bi doog moo leen naqari lido bi ma leen caraat doog moo leen naqari waaye kër gi kenn du fi lido kenn du fi carte kenn du kenn du fi lido kenn du fi carte lido moo leen naqari dama say bañee baax na. et puis Marème euh, nen yi omelette bi defal defal neuf neuf nen dina baax mën na maa mën na maa suur ak tuuti frites yi kii moom jàpp nañ ko moom kii moom xam naa dee.